mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dal leen ak jàmm ci seen sit Assalaamy TV ak sunu info TV noo ngi am mbégte di ànd ak yéen fii ci barab boo xam ne taarix du ko fàtte waaye islam eh, itam du fàtte cosaanul barab bi fii di Longhor Mbaye Longhor nag bu ñu ko tuddee xel yu bari danañ dem ci eh, lu bari ci taali jàngu yi nga xam ne ñoo di taali jàngu yi nekk ci réew mi eh, fii nag ñu taxaw bokk ci barab yi nga xam ne histoire u Sénégal bind na ko mu di barab bi nga xam ne jàmbaari lislaam ju mag ja eh, mujahidul akbar ba di eh, mm, eh, sunu maam Maba Jaxu Ba fii ñu toog fi la doon jànge alquran ci wetu Mambay Birama yaakaar naa ne sëriñam boobu nga xam ne moo ko doon jàngal doon ko tarbiya nga xam ne booba li ne ci ab xolam nekk ci am xelam mooy lislaam nekk benn benn benn benn dank boo xamante ne bii ni ko uh, sunu borom subhanahu wa taala waxee ci alquran waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafarraqu waaye innamal muminuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum ñaari aaya yooyu rek moo mas di fanaan ci dënnub uh, maba jaxu ba di fanaan ci am xelam ba yéeneem jooju nag fii la ko sabab loo ñu taxaw nag ci barab bi dend ak kenn ci ñooñu nga xamante ne bii bu ñu tuddee taarix ci tund bi daañu ko tudd mu di doctor Khadim Mbacke docteur Khadim Mbacke mu Serigne Modou Awa Balla moom maam Thierno Ibrahim borom Daarul Moxti yaakaar naa bu ñuy wax xam ci adduna bi wala ci Afrique wala ci Sénégal bu ñu ko tuddee dana mën a représenté mbooleem këri diine yi waaye ñu feggoo ak délégation bi nga xam ne ñoo bàyyikoo nag ci kër sunu maam Maba Jaxu Ba ñi nga xam ne fii ñu taxaw tey jii yaakaar naa symbole la ci ñoom bu fekkonte ne bi dañ naan drapeau Maba Jaxu Ba anamu dañ naan ma ñu samp fii nga xam ne fa seen maam ja nekkoon ñoom it ñu bàyyi ko ba ñooro ñenn ñi bàyyi ko ak fu ñu mën a bàyyi ci biir mi ak bitim réew ñëw ngir jëmmal si loolu te mag ñi dañuy faral di wax ne képp ko xamul sa bopp dañ la koy wax waaye képp ko xamul sa bopp doo mën a mënal sa bopp doo mën a amal sa bopp ñoom nag gëm seen bopp ak xam seen bopp ak jéem a mënal seen bopp moo tax ñu dellusiwaat cosaan dellusiwaat fa seen maam déparé woon ñu ñëwaat fii taxaw fi tey jii fego ak sunu maam maam laay mbay mi nga xam ne moo yore kaddu longoor gi tey jii teewal fi maam daam mbay xam lool eh, Baye Modou Mbay xam lool barab bi moom itam yaakaar naa ne garab gi fi nekkoon doon garabu xewar fekk na ko fi nga xam ne wóor na ko ne ci taatu xewar gii la ma ba joxu daan eh, toog ñu fegoo ak itam eh, Serigne Mbaye Taïf Serigne Mbaye moom itam bokk ci ñi nga xamante ne bii Serigne Touba moo waxoon ne maamam Modou Matar Mbaye mi jur baayam Serigne Touba nee na bi muy waajal yoonu murit da ko ne woon yow toogal ndax sun borom day waajal ab gawar boo xam ne bokk nga ca sant ya te nee na moo njëkk a jébbalu ci doomi soxna yi moom it bay ko fii ci Longoor ñii di ay wëlëree muy dox relation boobu kon dañuy bàyyee kàddu gi ak sunu maam mu leeral ñu barab bi su ko defee sëñ xaadim ñëw su ko defee ñu jox nag délégation bi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci kur sunu maam Maba Jaxu Ba. fii de mooy barab bi nga xam ne fii la moom Maba Jaxu doon jànge maam Mor Soxna Fall mi sëriñam ak xewer moo fi nekkoon xewer gi ba mu déegut man dama ci daa fàq ay soccu di ko yóbbu ñooro di leen ko won ñu di ko béggaloo ne boo demee Màkka lii rek ma ne yónni amal na fi nangam ma nag ba nga xamee ne jóge na Longoor ñoo bëgg a dugg ci jiyaar ji di siyaar si maam maam Mor ba mu dikkee alxuraan yëpp moo ko taalibeem ñaar roba rek lañ ci toppul ci li maam Mor ci ay dong mu ne ko nag dama bëgg na nga ñëw jiite jiyaar ji may sa jëwriñ mu ne ko man damaa galfan ndax damay jàngale waa dinaa la booleeg Babacar Anta Laañ sama rakk ji mu ànd yow di la ñaanal dinaa la boole Ahmadou Makhtar Mbaye sama taw bii mu ànd yow di la xeexale Ahmadou Makhtar moomee bool nañ ko Maba mu ànd ak Maba ba Maba saay ñu dellu si ko longoor laxasaayiñ ko laxasaaye woon bañ ko teg yetti àndaari bal bal bu dikk ci laxasaay waaye benn bal du Maba nag sa mamor ne ko am na doj wu nekk njal ba da ngay dem ko saako suuf dem ngay signé jox ko lu mu wir doj wi jóg mu ko so wir dee ba mu tolloog say toj ngam réew su tolloog sa toj nga meneen su tolloog sa nga meneen soo wir dee mu jóg ba jotatoo ko da nga ba not lépp te dara du la dara waaye Maba nag ba mu ko wéy ba tool gu ne mun na aw fit àggale na ko lii tax mu des jaar ji euh, comme ni ni ko sunu nijaay waxee sëñ Ablaye Mbaye mooy fii daal moom bu ñu sañoon ab jàngukaay fi am bu nga xam ne dana ko maam yu baax yooyu euh, Martin Luther King daan wax ne I have a dream I have a dream yaakaar naa ku ko yeewoon bi bi eh, Obama nekkee nekkee président dana xam ne géntam boobu sotti na loolu la sëñ Mbay mi wax léegi sëñ Mbay Taïf ci ne ah da ngay mel ne kuy gént rek waaye balaa yàgg eh, ci ci dogal suñu borom surtout ci doxu sëñ Tuubaa doxub sëñ Tuubaa daa gaaw waaw te fii moom lu waaye di samp ci sëñ Tuubaa nga koy samp waaw moo tax incha allah taala man de li ma gëm mooy dana sotti ci leet te du yàgg yàlla na yàlla def na nu bokk ci ña koy sottal te fekke ko barke Xaadimu Rasuul ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, waaw yow li ma la waxoon léegi nag yoon wi moom ah da nga koy feddalee wala woo waaw lii itam mi ngi sa loxo incha allah waaw waaw léppay baax alhamdulilah ñu ngi leen di gërëm ci turu njaboot gi yëpp ñu ngi jugee usra kër tafsir Maba Jaxu ànd ak sunu baay Malick Roqi ak sunu jigéen soxna Béti Ba ak sunu frère papa Malick Ba ñëw teewal mboolem njabootu Tafsir Maba Jaxu comme ni ma ko waxee woon tey maanaam képp ku sëtoo ci Maba Jaxu tey bés bi waroon na la fi fekk ndax lépp lu mu am ci barke sëriñam barke dëkk bii la ko amee ndax fii la jóge yàlla ubbi ko lépp futuxaat mboolem li mu déparé ci ay futuxaatam ci dëkk bii barke dëkk bii ak jaar bi mu jaar ci sëriñam am ngërëmam la ko amee tey bu ñu yàlla mayee chance ñëw topp ay jeexitalam di ay sëtam yaakaar naa ne ñun tey ay sëtam li ñu war mooy fexe ba identifier wu sunu bopp ci dëkk bi bokk ci dëkk bi ñëw bokk ci li koy doxal ci li koy yëkkati te lii nag symbole la ci te symbole dafa am solo ci islam boo xoolee eh, alxuraan yàlla bi muy wax sunu maam Ibrahim naan ko wooteel. wa azin fi nnaasi bilxajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamin yaatiina min kulli fajjin amiq boobu ci ndànd foy foy la la taxaw doon woote waaye tey boo xoolee kaabatallaahi mooy épicentre àddina bi lépp ma nga ma ngay fekk foofu kaaba te incha allah fi ma taxaw nii laa yëg ni ci barke aaye bii ma tudd léegi incha allah université biñ fi bëgg ak leneen lu dul université ci barke leeru alquran bi nekk ci dëkk bi yàlla nañ ko yàlla defal ñu ngi koy ñaan aussi ci barke sunu sang bu tedd bu baax bi di sëtu maam Thierno Birahim di sëtu sunu maam Cheikhul Khadim ñoom it wax dëgg yàlla maam Cheikhul Khadim nekk jantu lislaam nekk jantu l'islam nekk ndamu lislaam nekk patrimoine islam donc fa tabarakallahu fi jamono tollu tey fii Sénégal toll mooy waxdaaniyatul muslimin maanaam na sunu maam tafsir ma ba fexe woon boole mag ñëpp ñu dajale ci benn idéal xeexandoo ci benn idéal yàlla nañu ko yàlla defal foofu la réew mi toll léegi donc ñu ngi ñaan yàlla yàlla na projet bi ñuy naal yàlla nañu yàlla may ñu réaliser ko comme ni ko sunu sang bu tedd bi ñaanee ci lu mu gën a gaaw incha allah di gërëm nag di beral gërëm ak ñaan sunu mbokk mi sëriñ sëriñ Longoor Taïf lépp moom ndax euh, du sonn ah, du tàyyi amul bés bu dul fajar 4 heures du matin message am laay njëkk a jot sama téléphone fajar gu ne fépp fu mun a nekk ci àddina bi lépp luy doxal Longoor rek lay nekk ah, moom yàlla boole nañu ah, ci wàllu business ci wàllu yëngatu àddina waaye amul lu muy yëngatu sax te du ci ñambaas mbiru Longoor loolu man seede laa ci amul lu muy ut wala di ko dox suba ngoon gu dégg bëccëg bu mu yemale ci boppam donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla kartanal ko yàlla doolee ko suturaal ba mboolem li mu ci dëkk bi yàlla defal ko ci sutura waaw ñu ngi beesal yéene yi beesal euh, cofeel yi beesal alaqa bi amoon diggante usra kër Tafsir Maba Diaw ak kër gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum wa rahmatullahi taala xaalim noo ngi lay ziare. Eh, tey sakku ñaan ci jataay bi ci ni ko waxee ci anglais yàlla dogal ko ci ni ko sëriñ bi tudde ci alxuraan yàlla dogal ko ndax damay wax ne loo fi seen ci àdduna lu ne pas-pas ak yéene moo ko lal ba ci sunu jëm mu yi nga xam ne tey mooy kii nu gënal muy sëriñ Touba tey li ko andi Mbàkke bam sañ ci Touba Touba di Touba nun ñëpp nu jëm fa daf doon topp li ñuy wax la de l'empreinte lu jiitu ñaari téeméeri at maamam maam maaram ñëw na fa am mbakke mu boyi fa ñam fa bay te booba na ma yàlla jégal baayam booba maam Mor Anta Sali yu dugub waaye daa dellu di topp loola ba tax mu am tuuba ba Touba toll nii mu toll adduna bépp nag loo fi seen mu dox lu ne xamal ne la ko lal dafa am pas-pas pas-pas nag mooy looy refaire référence donc da ngay xam ne da ngay am référence te yàlla dogal na fii nu taxaw référence la damay wax ne fii nii ñi fi jàngee danaa rectifier tuuti mabba bi mu fi ñëw bind na ab kaamil mabba bi mu ñëw fi bind na kaamil ba pare dafi ñëwoon di jàng xam-xam ak ñu ko fiy nëbbu ak mu fiy def tarbiye comme ni ko sëriñ bi waxee parce que booba booba réew ma mu nekk buur ba fa nekk nanguwul woon kenn julli dañuy nëbbutu bu ñuy julli ba ba mabba tafsir am fukki at ne bàyyi lii duma ko seetaan ñu ne kii danoo nar a andil problème ñun ñëw làq si ko longoor boobee la amoon pas-pasum ne booba fukki at la am jihaad ji mu jihaad nga xam ne ni ko kii waxee tey docteur Ahmed bu fekkoonte woon ne tubaab bi dafa gagné quatre-vingt-dix-sept pour cent chrétien mooy am cinq pour cinq pour cent musulman mooy am loolu mooy am ndaxte képp koo xam ne tey nit nga doomi soxna nga ci Sénégal sa maama nga fa woon mooy bis bi maam Thierno Birahim maami sëñ bi juddoo kon nag place bu mel ni kuko am te boobee kat jaar na fekk Lat Joor ak Demba War ak ñeneen ñoo xam ne ñu ñu mën a wax le kon nag réew gént gi sëñ Xaadim di wax mooy dañuy gént liy defar adduna bi jàmm ji liy defar Afrique liy li Sénégal ñu defar fii université boo xam ne ñi cay génn ñooy defar Sénégal ba defaraale adduna bi ñu tudde man déjà damay rêvé def naa étude bi déjà tuddee ko maam maara Mbacke dèjà yaa depuis 96 def naa ko complet booba ba ma koy def damay xayal rek waaye nag dafa am loo xam ne moo tax ma koy def toute révolution révolution bu nar a réussir bu ne ñetti baat lay àndal dafay ridicule dañ naan kii daa dof ba ca topp mooy day dangereux parce que buñ loolu buñ ko waxoon tey ñi nga xam ne ñoo ñànk réew mi li ñuy wax mooy ñii dañoo bëgg a delloo si démb nangu réew mi def doon ay buur waaye nag bu réussir dañ naan cey waa ji lii buñ ko teeloon def buñ ko defoon bu réussir kat dañuy mel ni Arabie Saoudite mel ni Koweït mel ni Maroc du ñu defi élection ami buur bala ñu mel ni Iran doomi soxna képp yoo xam ne dañuy boole nekk président di jiite ci ajjuma ja te loolu war nañ ko mën a former fii te it tubaab bee ko fi jëlee parce que former woon nañ ko pire damay wax Sénégal pays paradoxe la parce que avant la révolution française bi ñëpp di référé wu fukki at ak ñett ji jiite na ko Sénégal am ñaari révolution yoo xam ne benn bu ne république islamique la benn ba Thierno Souleymane Ba moo ko jiite benn bi Ndakaaru jël Jóob Ndakaaru gii ji suñu capital tey république islamique la tubaab yee ñëw lakk pir taal daara yi nenu du ngeen dara ñu nekk fii ngaf ngaf yi di jéem a dégg tubaab te nun de yàlla xam na ne la constitution de Thierno Souleymane Baal moo gën a nekk ci affaire droit de l'homme moo gën a valable suñu constitution bi parce que lam doon wax ak ak yim joxoon doomu aadama libéré dégg nga jaam yi moor yi doon def ak lañ fa doon def lépp mu dindi ko nun àggagun fa waaye nag tubaab yi dañoo ñëw suul ko ne nu du ngeen dara nu topp fi ci ñoom di ŋaf ŋafi léegi nag li ñuy wax mooy te di ko ñaan fii ci barkeb alxuraan mi ñu doon jàngi fi nga xam ne 1580 lañ sàcc longoor te ñi fi tëdd ñëpp ñëpp moo xam góor ak jigéen la ñëpp ay kaang lañ ak ñu mel ni sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba daa fi ñëw ak tafsir Maba Jaxu mi fi ñëw te bàyyi fi leer ñu dem ba université boobu mel ni Caire wala mu ëpp ko doole boole Afrique de l'Ouest ba ñi fay génn tey ñooy defar adduna bi andi jàmm ci adduna bi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa